donc ñu ngi ñëw fii ci Notto Gouye Diama ku xam Notto Gouye Diama xam ni zone la boo xam ne vraiment dañ fay exploiter lu bëri ci lu jëm ci maraîchage donc ñu ñëw mu nekk jeune ku gis exploitation bu toll nii ab jeune di ko doxal mu leer tey am na motivation te vraiment bëgg na li muy donc ñu ñëw fii ci Notto dugg ci tool bi pour gis soxna waxtaan ak moom ci lu jëm ci mbay mi waxtaan ak moom ci cursusam waxtaan ak moom vraiment ci jaar-jaaram mu mun ñoo wax tey naka la def tey ba commencé mën a exploiter lii ba mën a employé ay nit yoo xam ne journalièrement da leen di fay ak yëpp fan yee gis nañu ministère de l' agriculture ñëw na fi encouragé ko ak yëpp donc tey ñu mën a ñëw tey waxtaan ak moom tey li indi loolu yëpp ak jaar-jaar beeg xam-xam beeg lépp donc à tout de suite ci seen beneen numéro wu découverte

Euh, à magnifique Noto di exploiter 50 hectares. Mhm. Ah, mais je wax exploiter 50 hectares un peu à part école de formation bi à part école de formation peut-être euh, mën école de formation bi commencé. Mhm. parce que je suis euh, master 1 dama commencé tout Touba Pekup juste en face Je mu Je loué ay tool foofu. Euh, suñu ma euh, rappel bourse. de 300 et quelques mille. ma loué Tol, commencé di bayantu on peut dire parce que tu peux pas avoir. Euh, avec 350 hectares mais donne naa am ay moitié hectare di def foofu maraîchage mais bon un bon jour aussi qui ma fa bàyyi On ma une période examen waa ji dafa récolter lépp sama un daw déedéet kay <laughs>

wajur yu don béy wala comment ça s'est passé ba nga kan orientation bo noonu ñun nag ay jambur jambur lañ ah. sama papa eh, lugu la dekk sama yaay lugu la dekk sama papa moom da daan bay eh, man aussi am sama grande sœur bu nga xamni ne chaque vacances sama fa daan dem comme hmm. lu ngeen tombeel ni gerté la daan tombeel ñom aussi ñuko doon def peut-être amour bi mën na jóge foofu mais loolu lepp su su wesso je pense que passion bi c'est c'est inné hmm. Je pense que patient c'est inné. Euh, parce que euh, tay agriculture da nek ben métier bo xam si tu n'as pas la passion tu peux pas percer. doo dem doo dem du tout passion bi moy jiitu lepp passion bi ngay jiital après nga am expérience bi. Mhm. comme tay par exemple kooku lekk sa 300000 yi. mënoon na la découragé loo mais da la gëna motiver motivé. la voilà da la gëna motiver motivé. dëgg la tey moyens yi nga am pour ñeu arriver à ce à ce stade là à ce niveau. ay mhm. ku gis lii xam ni vraiment 50 hectares c'est pas c'est pas petit. Mhm. tay par exemple gerte bi ni ci superficie bi nga ko def c' sur ñaata hectares. Euh, cette année ci ñun. 25 hectares de Après avoir fait de la pomme de terre, de l'oignon, euh, j'ai décidé de mettre de l'arachide pour un peu corriger la texture du sol. Parce que dafa fois aussi si y si nématodes euh, mais aussi il bi rentabilité parce que les bu à part permettre de couvrir ses charges. voilà. donc vraiment lu am ñëw ci pomme de terre après nous ci gerte mu wane ni yooyu yëpp technique pour fertiliser sol bi pour pour différentes cultures yi nga aussi en même temps pour préparer le euh, sol bi mais est-ce que di nga am benn moment de stand by pour xam ne di nga bàyyi et tout ça. actuellement on est au mois d'août normalement le 15 war nañ pare récolte euh, mois d'octobre nous ñuy reprendre c'est-à-dire que ñun ñëpp dañuy dem jël pause. Mhm.

mu mel ni ñii da nga leen di jël peut-être journalièrement wala waaw tey ñii da nga leen di jël euh, sama machine tracteur. waaw récolter gerte gi. soo deexee ba pare nga jël ay journalier góor à peu près tey ñoo ngi am soixante-dix pour ñu mëna dajalé nga fay leen journée 3000 jigen ñi ñoy topat ci kan ci ginnaw xalé yi di forat ñom aussi ils sont à hauteur de 90 ñom 2500 nga leen fay ñi ci dess par pan nga leen fay pan 500 c'est-à-dire la journée tu es à plus de 300 ou 300 et quelques personnes mom ngay jël par jour ah, soxna loolu moom yomb tey dépense yooyu noonu lépp lépp da nga am partenaire wala comment ça se passe bay exploiter partenaire bi je travaille avec mon frère le gérant de business trading monsieur Gaye mon moom moom Euh, man j'ai fait de de l'agronomie et de la chaîne de valeur. ñun ñaar ñoo associé pour mon a liggéey fii. waaw tey dañu boole compétence ak finance. ñu boole ko concrétiser ko. moo indi lii allah.

C'est aussi nanguna nanguna limi def. donc au delà de sen sen accompagne sen collaboration bi. Mhm. est ce que vous yéen une ngi collaboration yo xam ñeu waaw parce que 50 hectares bi ñu am fii nii tey mën nañ ni dayatul. parce que dañu envisager am ben ferme intégrée bo ça va te permettre de faire de l'embauche mhm. euh, de la production animale en général euh, te fi comme production végétale kese lañ fiy def donc il nous faut une autre espace peut-être pour créer plus encore euh, d'emplois mais également de nous permettre de nous ce que nous avons am euh, lu euh, objectif si agriculture au sens large du terme. ok waaw. tey ñu gis ni aussi tamit ministre de l'Agriculture, ñëw monsieur Mabouba Diagne ñu ngi de passage. Mhm. mu ñëw fi vraiment rafetlu ce et tout donc tay, nan nga mëna gisé tay tey ministre Mabouba Diagne le ministre de l'agriculture, tay mu mëna ñëw découvrir sa tol né, joxé ko en exemple ne bu sañon tay Sénégal comme ce genre d'exploitation, bi euh mom lañuy def. je suis allé dans les Niayes j'ai visité une jeune une jeune une jeune femme qui vient de sortir de l'école et qui avec un commerçant qui indi xaalis qui indi xam-xam ñuy exploiter 50 hectares. mais 50 hectares boobu bi ma fa duggee dama ne ça c'est le modèle que moi je rêve de créer au Sénégal xale bu jàng kii am tuuti ñu boole mais soo demee gis fa lañ fa bay ci nord bi qualité bañ ko fayee nga xam ne kii xam-xam la dawale kii indi koom-koom ñu commercialiser ko loolu daf ma dama gëm ne c'est le bon modèle parfaite maîtrise de l'eau nga gis tracteur yi taxaw asperseur yi gàncax gi ni semence bi nim ko defare c'est-à-dire que nga xam ne kii kat 50 hectare am bi ku ko joxe ko ko joxoon 500 hectare waaw euh, monsieur Mabouba Diagne ministre de l' agriculture je le salue de passage kontaan euh, trop si li mu jaaroon si suñu tool mais aussi sa façon de faire parce que man dama gis ne l' agriculture dañ ko war a assainir. comme on ko war a assainir nag tu dois venir vers l'information. mais le plus su aussi euh, il nous avait dit que ce modèle moom séduire na ko et bu reproduire dans plusieurs domaines effectivement parce que par exemple je suis sortie à l'école vers 2019 il y a beaucoup de jeunes beaucoup de promotionnaires qui sont dans ce cas donc nous, tey bu nous amoon euh, ay ay ñu leen nous leen ñu leen jàppale wala ku jox de dinañ def mieux que man lu def te te amuñu chance boobu noonu c'est-à-dire que t'as, par exemple ben anecdote j'espère que dina cette émission bi ma jugee Proval damaa doon ut liggéey avant may xalaat côté entrepreneuriat et tout il m'a dit carrément que kuy doog a école mënu ko jël parce que ça va faire maximum deux ou trois ans mu koy jàngalaat liggéey et il n'a pas ce temps. ah oui carrément aujourd'hui lui

est-ce que tu as ñu ngi ci parce que euh, man suis business plan à mon niveau comme vous l'avez trouvé je pense que le ministre de ñëw fait le vendredi le lundi j'ai commencé à récolter Si bu may récolter à 7 heures dañuy def supervision euh, journalier Le journalier pareil, pare ñu def pesage presque je sors ici au champ vers 21h. donc c'est un peu compliqué mais juste après ça je vais concrétiser mon business plan et après on va se revoir. voilà donc tu fii maanaam ci tu bi tey le mën dox est-ce que lan yan par rapport à sa production gis nañ ni tay ñi fi liggéey nii di travail à main. Mhm. mais tey est ce que yor nga ay machine tay yu la permettre aussi gis naa benn tracteur aussi. Mhm. est ce que tey yor nga machine yu la permettre tay nga mën a def nga mën a un peu lii nga mën a bañ a am ay pierres yi par rapport à la waaw tey travail à la main mën na la euh, dimbali nga def. création d'emploi. Surtout là, surtout ça. Ouais, mais agriculture m'a dépassé faux. Par exemple, tay, ñom dinañ liggéey mais li ngay perdre mo tey dañuy liggéey ba pare nga jëlaat ay journaliers ñu toppal seen ginnaaw mhm. donc c'est un peu compliqué mais côté manquement yi peut-être je dirais que am nañ yenn matériels yi mhm. te matériels yi ñu am yëpp ñun ñoo ko jëndal suñu mais aussi ça fait partie des promesses du du ministre ñu ngi koy xaar incha euh, parce que matériels aussi xawul yomb dafa dafa xaw cher mhm. mais matériels yi ngay gis fee peut-être après on aura l'occasion de de de les visiter mais alhamdulilah côté matériel je pense que soxla nañ un apport touti parce que tay ben tracteur minimum est soxlawee benn senseur à hauteur de 30 millions et donc c'est un peu compliqué tu as l'électricité, chaque mois il y a 2 millions 600 factures. donc il nous faut du solaire.

moom après day obligé de louer wala muy xoolaat nu mu koy jëndee aussi c'est un peu compliqué. une chaîne boo booy commencer production soit variété de la boque. tey façon ban de décider semer ko la boque. mais également euh, nan nga koy technique culturelle bi la boque. au-delà de l'eau le ndox important. importance donc il il vous faut euh, une maîtrise parfaite de toute les chaîne pour avoir certains résultats maîtrise de l'eau quoi maîtrise de l'eau maîtrise de du technique culturelle parce que tey mënuloo da ngay def arachide def des engrais bu la neex. nous même à la limite gerte boo des def produit phytosanitaire duñ ko def. donc c'est à moitié bio parce que ding ci def quelques engrais chimiques. engrais chimiques par exemple avant de semer les les les comment dirais je les semences bah, am na produit yu ñu koy mélangé. waaw ay fongicides le pour bagn euh, euh, insectes dindiko voilà. Euh, au-delà de ferme bi aussi y a d'autres fermes qui accompagnent. accompagner si boo un accompagnement vous aussi ku la sa gestion ferme parce que comme euh, on dit tout tout le temps il y a beaucoup de faux de faux dans notre domaine jàppale leen si c'est un euh, projet de voilà c'est ça. Les léegi consommer local bi yow loo récemment je viens du Maroc. donc di nga gis carrément. Maroc da ngay dox ci dëkk bi rek xam boo doxee benn koñ di nga xam ne mbay bi mi ngi dox. dëgg la benn koñ da ngay dugg di nga xam ne mbay bi mi ngi dox. dëgg la donc tey nan nga gisee ni Sénégal mën nañ avancer à ce stade là parce que déglu naa keroog ministre de l'agriculture dégg naa ko. muy les milliardaires wala les champions. nan mu ngi leen di woo ñu mën a ñëw mu jox leen ay suuf bay mhm. alors que les jeunes sont mhm. am na ñoo xam ne pare nañ pour liggéey dañ mhm. leen utal ay suuf mais munoo ñëw rek parce que l' état aussi accompagnement la munoo ñëw rek wax dafa yor xaalisam rek bëgg ñëw investir nga daggal ko suuf comme comme ko defalee yenn étranger yi donc je pense que man politique boobu war nañ ko mën a dépasser mhm. war nañ mën a jël ay jeunes yi nga xam ñoo génnee comme école bi nga génnee wala jeunes yi nga xam ne tey ay marchands ambulant lañ ñu recaser leen ci tool yi mhm. ku nekk ñu xool foo dëkk ñu bënnal la ndox aménager le terrain xool ban façon partenariat public privé peut-être bu mënee am mhm. ñu xool tey nan lañ ko mën a doxalee loolu lan moo ci sa xalaat par rapport à à ça ak mbayu Maroc ak Sénégal ak sous-région waaw man man man mii aussi euh, j'ai la chance de visiter deux fois Maroc avec euh, les Siam ak yooyu carrément différent par rapport à ce que nous À la limite, si Mais je pense que euh, le ministre, le roi, nous d'accord sur le sens. Parce que par exemple, nous, on a 50 hectares. Sur les 50 hectares, si on fait de l'oignon, on arrive à avoir 50 ou 55 à 60 tonnes avec les espèces. Il euh, y a des personnes même qui arrivent à avoir 100 tonnes à l'hectare de l'oignon. De la pomme de terre aussi, on est en moyenne sur les 40, les 30 loolu xam nga mën na tey exemple si commune de Nodo, sama tool mën na leen mën na leen euh, jàppale tey chaque commune ñu am hectares je pense que c'est dans ce sens foofu lay waxee ne milliardaires yi mën nañ ñëw investir mais aussi je l'ai entendu si euh, beneen émission bu muy il nous faut des coopératives coopératives agro agrobusiness mënu si bokk donc coopérative c'est pour les jeunes et si vous avez une coopérative bi nga c'est hectares chaque jeune ñu jox 1 ou 2 hectares vous war ko piloter Le modèle lay doon boobu tey jeune bi à euh, Dakar di def ambulant gis la ne yow kat yaa ngi mën tabax sa kër il va retourner sans kenn woo ko je pense que c'est ça dans ce sens parce que vous bëggee suffisant aussi euh, l'agriculture familiale c'est bon mais l'agrobusiness yi aussi la boo fa demee rek di nga xamni ni ñi bayantu bayantuwuñu dañuy bay montagne yeeg fep donc ba ma demee Kenitra tay par exemple da ngay gis ni carrément muy montagne muy lepp da ngay gis carrément c'est des zones yo xamni tay c'est rien c'est dédié que à l'agriculture vraiment mo tax tamit je pense que gouvernement bi war nañ mëna def ay jéego yo xamni yenn champs yi jël diko diko ko morceler pour les terrains. Mhm. war nañ ko bàyyi pour mën ko soppi ay ay ay tool. effectivement vraiment mu lu melni ferme ferme intégrée aussi lu am solo la. Mhm. donc agriculture légui c'est de l'agro business. Mhm. donc ci li ngay bay. mën nga fi def ay transformation donc est-ce que yaa ngi xalaat def ay transformation pour mën a écouler aussi ci marché si def benn petite chaîne d'industrie pour mën a euh, transformer li ngay bay effectivement parce que récemment rek euh, comme man arachide mooy nekk sama fin campagne euh, damay perce euh, di def ay projet pour campagne prochaine nan la meuna continuer si sama ligne sans répéter lu ma defoon année passée. par exemple cette année-ci on a prévu defoon euh, projet un peu tard euh, légui mangue jeex mais dañu bëggone def ben petite unité de transformation pour la mangue mangue tay lu ci mën a génn bëri na mën nga am jus de mangue mën nga séché mangue bi mhm. mën nga aussi def beurre de mangue si noix bi tey pomme de terre par exemple cette année-ci j'ai fait 10 hectares de pommes de terre bu la bu fekkoon am nga unité de transformation bu la neexee nga def ko mhm. parce que amoon des pommes de terre rouge aussi vous la neexee nga def ko chips parce que pommes de terre tey par exemple baykat bi day jël variété bu ko neex rek mu def ko pomme de terre mais chaque pomme de terre dafa am luñ koy déjee am na boo xam pour frite la am na a xam ne pour euh, purée la <laughs> dafa bëri c'est tout un processus mais sama sama sama mbokk baykat yi jom aussi parfois da ngay waar. mu mel ni espace bi tamit war na mën loolu donc war nga mën a créer benn vraiment une chaîne industrielle. Mhm. pour mën a jëm à ce stade là yaa ngi exporter li ngay bay. man exportation commencé gu ma ko parce que euh, am na ay partenaires espagnols yi nga xam ne ñu ngi doon contacter même des des Mauritaniens pour ñu defal leen oignon blanc bi mais commencé gu ma ko euh, actuellement peut-être je me concentre au niveau local. suñu paree jéem a sous région bi donc commencer, parce que je pense que projet aussi c'est étape par étape la. donc mun nañ tout de découvrir dem xooli ngooñ bi. <laughs> éleveurs ñoo ñoo fi fii di ko jënd. Mhm. wala comment ça se passe. waaw koñ bi aussi euh dafa am ñoo xamni ça fait des années aussi wala maximum 2 ans ma ngi nekkoon en partenariat ak ñom su ngooñ bi génné ñom ñooy ñew man je le laisse ni à l'état brut ñoo koy dajale solo ko seen bopp jël oto dem euh, mais ça n'empêche pas comme vingt hectares deux personnes ñu ko couvrir parfois damay jël ñeneen ñu jàppale parce que bu taw tamit yàqu.

Euh, bon bay nawet mënul ñak parce que amna ño xam mom lañ mën waye man j'aurais plus préféré ñu def ko contre saison tout en sachant que mënu ñu ko def contre saison parce que bu ñeppone defone contre saison aussi il il faut de l'eau mais également su produit bi génnandoo affaire day euh actuellement où l'on parle tay euh, prix bi mëna mm-hmm. ça n'a rien à voir avec le prix euh, gerte hivernal bi nga paré jaay sa aussi euh, da nga siy génn. waaw ñu ñu ngi sant daal. <laughs>

Euh, sur 20 euh, hectares. Cette année-ci, on, on envisage de le faire à 30 hectares. Okay. suñu paree def pomme de terre si côté à 15 hectares. Mm -hmm. on envisage aussi d'installer une serre de de de hectare. pour mun def un peu de l'horticulture. Comme, comme quoi def euh, poivron concombre okay. euh, piment pour mën couvrir parce que serre aussi euh, production sous serre li le la mën nga am ben espace bu mag bo xam ne du la ko génne c'est ça donc ñun aussi que ça soit yow mi am 1 hectare wala ki am 100 hectare si dafa sens la ñu war a def soxna léegi ci biir tool bi waaw donc ñi ngi ñëw tey fi nga xam ne tey waral mun nañ

léegi euh, par contre euh, bassin bi ñun luñ koy utiliser duñ koy utiliser pour arrosage. ñun pompage direct la def. mais buñu waré envoyer ben produit fertilisation wala ben engrais bu nga xamné c'est soluble. dañ koy jaxassé ci bassin bi daal di tal machine yi mu yobbu ko par hmm. zone. voilà té lañ koy mélanger dañuy dañuy def engrais bi mu mélanger ko léegi ñu jaar ko dem mais bu féké dañuy euh, roose ak ndox kese pompage direct la def ci forage yi lay jóge ñun deux forages la am d'accord donc deux forages vous avez yoo remplir remplir bassin de le bassin bi remplissage ce n'est pas trop difficile. parce que le bassin est yaatu mhm. mais mais deux forages permettent permettent permettre pour nous assurer sur arrosage normal. ak autonomie Oui, waaw ak autonomie deux forages nous utiliser nous nous, couvrir 25 hectares donc tu li jëm ci Madame. plateforme bi ni ngeen ko defaree yooyu yëpp. Mhm. tey études yooyu tey loolu nan naka leen digg da jël beneen expert bu la ñëw defaral wala comment ça s'est parce que xam agriculture moom. Euh, soo nangoo ku nekk sa domaine rek. après affaire day yomb tey par exemple bu nekkee bassin la. Euh, am na ñu nekk génie civil génie rural même mom lañu ñu leen école feulé. Ñom ñoy nekk installation irrigation tout ce qui est bassin Tay bu nekké production production tout ce qui est production man maa gérer. Mhm. bu fekkee électricité aussi dañuy dem jëli benn électromécanicien moy gérer partie courant c'est ça machine bi aussi man maa gérer tout en sachant que am ferme yo xamné dañuy jël benn technicien bu nga xam pour machine yi la. voilà donc mu melni mi ngi nii agriculture dafa am yu bëri yo xamné gérer ensemble li maîtrise de l'eau li am <laughs> dispatcher traitement par rapport à l'eau et par rapport à la production <laughs> donc vraiment ni ngi lay <laughs> machine donc comme su suñu émission soxna mi ngi jëm ci jeex donc ñu ñëw taxaw yow ci tracteur bi bi nga xam ne tey defe naa moom kese moo nekk pour yenn yenn liggéey yi mhm. donc ñu ngi ci bind financement Mayer ministère de la agriculture et de l' équipement rural mhm. en plus financé par DER mhm. donc yow nga dem jënd ko donc te loolu doy na waar daal ñu wane ni vraiment Euh, gars yi war nañ gën a mën a topp suivi ku amul tool. Mhm. vraiment kenn war la mën a jox tracteur. ba ngay wër ba ngay wëlbatiku di ko di ko di ko jaayaat te yow lan nga ci am. waaw xam nga tey c'est ñi nga xam ne ñun ñooy bay nekk sur le terrain nga xam boo ñu joxee tracteur mën nga ñëw vérifier ko. nga jox ñeneen tracteur léegi ñu nga ko jox ñu retourné waat di ko jaay. c'est un peu compliqué loolu moo indi le euh, ministère financier avec l'ancien gouvernement man ma soxla tracteur je ma ko am ma dem gis koo je ne amoon na ko donc c'est des choses yi nga xam dañ ko pour assainir l'agriculture on a on a besoin de de faire une étude sur sur l'ensemble des chaînes de valeur les forces les faiblesses les opportunités et les menaces pour pouvoir euh, reconduire euh, suñu fil parce que l'agriculture c'est un peu difficile quand même mais acteurs aussi dañu wara gorgorlu di def produits de qualité pour mën concurrence concurrencer tey euh, multinationale ou à l'échelle euh, internationale mais waruñu tok rek ku nek tok sa rox tay ben hectare bi ngay am di fa am quelques quelques tonnes foog ne loolu mooy agriculture fekk agriculture dépassé na foofu. mais est ce que tay yaa prévoir ci biir tool bi fi def ci lu élevage embauche voilà des choses comme ça lu jëm ci lépp lu jëm ci élevage ak chaîne de je pense que c'est pour bientôt même Nous euh, dañu faire une euh, chaîne de valeur bu nga xam Nous dañuy def embauche tout ce qui est production animale nous hein, mhm. dañuy des poulet de chair. Euh, en même temps continuer son production végétale pour nous permettre au moins continuer euh, chaîne parce que fumées qui yi dans ci production animale nous dañ ko aussi suñu ngooñ bi Donc, dañ ko soxla donc une ferme intégrée rek di maîtriser cette chaîne si la avez une ferme intégrée en plus de ça vous nga mën une culture foragère effectivement si que ben un hectare wala dara mm. ça pourra servir à tey animaux yi ci tey def ci culture fourragère. waaw culture fourragère nag j'ai des collègues yu koy def parfois ma amee temps même damay dem sur place euh, di xool ak ñoom parce que loolu yëpp maa koy def pour projeter suba bu ma amee ay nag wala bu ma bu ma duggee culture euh, production animale bi man ma mun ko defal sama bopp directement. macha allah donc soxna suñu émission mi ngi mi ngi jeex. Mhm. ñu nekk ñu kontaan nañ trop di la am ci découverte. Mhm. ñu bàyyi la rek nga am quelques mots yoo ci sànni balaa ñuy déglu numéro de la fin. waaw xanaa vous remercier si déplacement bi ak euh, coono beeg soriwaay bi euh, di kontaan loolu si si concept bi aussi parce que dama la daan suivre. Euh, tout en sachant qu'il <laughs> y a beaucoup de chaînes qui mes consulter mais tout dépend parce que tay vous avez interviewé beaucoup suivre ba façon dont vous défé ak yow c'est la même chose que fait, défé ça sera pas un problème donc on vous félicite di ñaanal aussi chaîne bi gëna mag mag sponsor sponsoriser aussi parce que nous, ñi dans le domaine agriculture nous sommes chaîne nous ñun ñoy def émission nous té aussi ñoy produits, produit à hauteur des millions donc pour nous sponsoriser c'est une obligation là nous ñun dinañ

ñu ci directeur Mamou Oumar Ndiaye di remercier vraiment toute l'équipe équipe yi les cadres de tout le monde donc vraiment nous ñoo tax tey émission bi nekk li mu donc nous ngi lay remercier yow tamit bu baax ci mm. nangu bi ñu nangul entretien bi donc vraiment di jox euh, téléspectateurs yi dig c'est un beneen numéro